naa leen mbokk yeeg xarit yi amaan mbégte ak contentement di leen présenter seen émission fii seen classique fii si Ndayane Vision ni ma leen ko waxee woon rek sama émission tey duma ci wéet benn yoon parce que dama ci ànd ak naanaan Coulou Fadrit une femme battante une femme ambitieuse ku bëgg li muy def mën ko xam ko macha allah une femme intellectuelle et oui elle a eu son bac licence en comptabilité et en gestion en même temps mais tey nag dañ ko invité en tant que coach en sélection Mama Tima ñoo ngi lay nuyu di la dalal ci suñu émission. fay naa la Benjamin naa sama naar bu rafet bu ñaawul bi di nuyu suñu mbokk internet yëpp di bége képp kuy bége La Rose Séduction aussi am contentement trop ci ñëw ci invitation bi ci ndaayaan Vision. ah sama gars yi tey nag. astuce de femme lañ woote li ma faral di wax rek jigéen da taamu nañ ci mu boole ñaari jus yi premier jus bi mooy lan jongama ba énervé être fashion classique deuxième jus bi mooy lan jonge jonge partout parce que jigéen loo jongama jongama tamit te boole woo ci jonge dafa am luy des dëgg neexul moo tax tey ñu ànd ak la Rose Séduction bëgg waxtaan ci jongetisme ah xeetu baax baax yi nga xamante ni képp ku jigéen rek soxla nga yooyu xeetu astuce de femme ci dafa mel ni suñu plateau yaaññ na ba pare macha allah waa lii xeeñ lan la li may xeeñ sànq ba léegi nii nii ah ëpp na. xam nga Tima ci baax lay dox gis nga tey dama andi ci li ma li ma yore yëpp dama ci indi tey zéro virgule zéro virgule zéro zéro un pour cent. loolu rek lañ andi tey teg ko ci table ji fas yéene ko waxtaanee yi lay xeeñ nag daa mel ne yii la ndax damaa def samay cuuraay yu baax andi leen ay cuuraay indi leen ay fer tey daal foo kupp ma baatare yow daal nee ma nii la rek yaay diriger laaj ma bu la neex rek ma lay firil. nag ci ma man dafa mel damaa jommi sax te commencé guñu parce que gis naa fii pass yi te pass yi si gémmañ lañ ko xamee woon dëgg neexul ma gis ko fii. bëgg nga expliquer ñu ñu comprendre mun a xam. fas yéene ko woon sama gaay bii mooy passi bi maanaam bi dañ ko jaxaseeg ay peru cristal ñu ngi jël ay peru cristal jaxasee kook suñu pasi ça dépend ci nit ki nag couleur am parce que couleur égale ne se discute pas bii mooy pasi bi. bii nag yaakaar naa ne waa team La Rose Séduction war nañ koo xam ndax bii moom. nekkul ne rek dañ koy takk rek di ko gësam sak fajar déedéet du pour takk gësëm rek de waaye dafa am neneen nu mu fay demee te boobu moom waa tiim La Rouge yaakaar naa ne xam nañ ko ñi ci bëgg rek bu soobee yàlla buñ ñëwee dinañ leen expliquer pasti bi bu guddee fan la war a dem ak nuñ koy defee beneen bi ci topp nag andil naa leen ay cuuraay xam nga jéeg moom dangaa war a ñeme cuuraay jéeg moom xaama tegal leen pasti bi nii def ko nii xam nga jeeg dangaa war a ñeme cuuraay parfum chambre neex na trop waaye cuuraay dara fayu ko tey nag dama leen a andil cuuraay andil leen gowe simple andil leen sarxatan andil leen naq andil leen digija bu ñu xooj comme ci nawet lañ jëm dañuy def ba mu baax préparer nawet bi te lii préparer nawet bi lii ci la bokk ndax ku ne nawet ne guus te bu nawet bu néeg guusee du am xet bu neex te néegu jeeg moom néegu célibataire sax nag taamu nañ ci xet bu neex waxuma la ak néegu jeeg kon donc dama indi cuuraay yi tey pour bégal sama gaay yi bi ci topp nag mooy tey sama pañ a gis nga ko dafa yaañ bi dama def samay peru pame yu baax waaw pour bii pour jéeg yi la jeeg ji nga xam ne dañoo bëgg bruit ndax góor ñi xam nga est-ce que xam nga ne góor bañu fer amul benn góor bu bañ fer góor yépp a bëgg fer ça dépend nag ci seeni goût parfois da ngay gis koo xam ne day ñëw ne la la Rose sama jëkkër bëggul fer dama naan déedéet am na ñoo xam ne yu dijj yi mooy seen vice am na ñoo xam ne bu yam bi tey jii moom moo leen di gën a am na ñoo xam ne tey jii brin bu sew a sew bi nga xam ne comme day nekk comme chaîne lu def bruit du def dara mooy tubaab yi ñoom yii moo leen di gënal mais nag soo xoolee ba ci biir sénégalais yi moom d'habitude yii moo leen di gënal ndax jigéen dangaa war a def bruit ci biir néeg bëgg naa ko trop ci biir néeg bëgg naa aussi parfois ngay génn ci say fer yu baax yu sew xam nga yi yu sew la waaye na ànd ak beneen boo xam ne tànk bi boo cappee dañuy xam ne jéeg a capp xamatul ne sama pañe nii mën la ko wan waala gis nga bii jàppale ma voilà gis nga bii mi ngi nii maanaam danga koy gis nii bii la àndal bii yii la àndal parfois da ngay namm loo xam ne doo namm bruit ndax du tout le temps ngay génn ci sénégalaise parfois da ngay génn ci bu tubaab bi tuuti ndax jigéen nee naa la dangaa war a mëne a bu tayee boo génnee ci pasi bu subaa nga génn ci sa paañ bu baax def à la sénégalaise gannaaw suba na nga génn say nuisette yu baax génnee say fer bii nag nday bii pour tànk yi la bii pour tànk la am nañ ci nag yeneen façon yoo xam ne feneen lay dugg boobu jaruñu ci àgg am naa fi aussi yeneen mën naa la génneel aussi yeneen génneel naa la fii ensemble feru cristal bu ñu booleeg pame bi boobu day fay xam nga jeeg rek bu guddee boo defee lii monsieur di dégg rëgëj rëgëj gi néeg bi di def bruit bëgg naa ko de dama bëgg jeeg bu feros génneel naa la ay cristal yu rouge jël li kooku tamit pour monsieur la rek xam nga du chaque jour ngay sol benn fer te mënoo dëkk ci ñaar tamit boo tegee bii teg bee bu yàggee day sàlli damay bëgg nga jël sa pañe def ko ba mu baax def ko ay fer ba mu fees dell bu tayee nga fël fii bu subaa nga fël fee gannaaw suba nga fël fa ca des am naa fi tamit ay sër andil nañ la tamit ay sër tu vois bi tàlla la voilà gis nga bii xam nga bii boo ko takkee lu bari ngay am dara du ko lonk te pax yi rëy na lu nekk xaj na ci jarul ñu koy àggale bëgg naa nag bu guddee nga def sa sër bu baax boole kook say fer xam nga kii boo ko booleeg lii dangay am lu bari soo ko booleeg lii dalay fay ndax sër bi boo xoolee dañ koo ràbb waaye per yi multicolore la boo ko booleeg boobu dalay fay soo ko boolee sa cristal yu rouge dalay fay soo ko boolee tamit say peme yépp benn la dalay fay moom daal na néeg bi jax dama bëgg néeg bi nga jël ko transformé ko def ko grand théâtre néeg bi di def ay bruit yaa xam nag sër yi couleur bu la ci neex waaye weex moom dama ko taamu guddi weex moom dama koo bëgg guddi maintenant bu yooyu weesoo am nañ fi yeneen am nañ fi yeneen yii nga xam ne mën ngaa xëy di ko yendoo xam nga yii moom du def bruit du def dara su guddee mën ngaa takk di rëgëj rëgëji waaye bu guddee bu ba bëccëgee mën ngaa jël sa yi di ko yendoo ndax jeeg tamit tàmm nañ ci jonge waaye nag du dangay xëy takk say fer di romb nit ñi nit ñi di ko dégg bruit bi di loolu baaxul damay bëgg bu guddee nga am noomel bu bëccëgee nga am neneen noo mel. ah macha allah macha allah maman li mu fi décortiqué tubaar fa la képp kuy jeeg bëgg lu baax defe naa ni kontaan nga tey sa xol sedd na parce que baax baax yi moom ku ko gis bëgg si mais lii may seen nii tamit lii xam nga man damaa xaw a curieuse bëgg nañ nga ñëwal ñu ci bi ñu comprendre. Benjamin tey andiw ma dara tey andiw ma dara dama ne xaaral rek ñu andi xaaj xaaj xaaj xaajaat ci li ñuy wane teg ko ci table ji pareegu ma bii nga gis nii am na yeneen yoo gisagul pareegu ma de gis nga kii gowe simple la bi moom amul dara waaye damay bëgg bu nawet jotee balaa ngay taal sa cuuraay da ngay jiital gowe kooku jéeg ju baax yépp xam nañ ko da jiital sa gowe simple. mu saxaar nga dàq say yoo dàq xet boo paree nag ma jox la benn sarxatan mbaa benn digg ja xenc ko nga xool dangay am lu baax bu ko defee boo ñëwee monsieur bu dugg see ci biir kër gi rek cuuraay li di gilli gis nga ni mu mel macha allah xet gi di gilli dama bëgg boo cuuraayee miir bi sax di ko téye damaa bëgg bu monsieur di ñëw bu taxawee rek miir bi da koy xeeñ xet boo xam ne moom dootul bëgg dellu day bëgg toog ci biir kër gi du bëgg dem fenn am nañ fi aussi balaa ma lay génneel sama paquet dama lay génneel yii andi nañ aussi ay cristal kii mooy cristal menthe am nañ ay cristal am nañ ay lem am nañ ay chocolat mais nag tey dañoo andi cristal bi kese pour mën koo développer bu ko defee yeneen yi ñu bàyyi rek képp ku ñëw ci La Rose rek bu soobee yàlla mu expliquer la nu muy demee andi nañ fi aussi ay karité nee naa la jeeg dangaa war a am quarité ak nu mu mënti demee jeeg daa war a ngànnaayoo karité karité nag dafa bëri façon xam nga ñun maliyan xam nañ ko bu baax xam nañ njariñam karité dafa am ay façon am na karité simple am na karité boo xam ne mélange karité mentholé lay léegi bii dama lay jox karité simple bi nee naa la léeg-léeg parfois bu monsieur wàccee mën ngaa jël sa paan def ci sa ndox mu tàng jël ay tànkam dugal ci bu la neexee nga sànni ci sa carbonate parce que day wàccee coono bi nga jël sa karité nag di dàmp ay tànkam xam nga jëkkër sang la da nga kaa war a tarbi ah da war a dàmp ay tànkam ba mu baax boo ko dàmpee ba pare nag jëlal ma sa benn serviette bu baax napp ko ci tànk yi ba mu normal yéegalal ma ko ci kaw na ko fa reer bi fekk si léegi ma indil la beneen bii karité la bu ñu jaxasee jaxaseek euh, mante bii karité mantole la xam nga nee naa dafa bëri façon bi simple la bi mën nga koo denc di ko dàmpe am na feneen tamit xam nga jigéen dafa sensible parfois mën nga koo jël parce que am na ñoo xam ne dañuy bëri li ñuy am ay infection souvent dañ leen di digal balaa ngay tëdd ngay jël karité bi di ko diw sa kanam am na aussi yeneen astuce yoo xam ne tamit dinañ ci ñëw yoo xam ne day lutter contre infection que ce soit mu nekk bu naturel bi wala boo xam ne aussi da nga koy dem jënd ji ci pharmacie ba wala quelque chose comme ça maintenant bii nag bu mante bi la bu mante bi ça dépend ak yow ci sa utilisation ndax bii nee naa la da nga koy raay ci tànk yi maase ko ci ba mu baax nga ne ko monsieur demal tëddi ne ko sama àjjana tëddal bii nag day ànd ak mante bii yaa xam noo koy defee ndax jeeg dangaa war a am say feemu bopp nee naa la dafa am mante dañ ciy dàmp foofu daal laa mën a yem mënuma laax lañ ciy dàmp nag <laughs> léegi ma indil la tamit bi am gowe bii aussi dañ ko defar at ay gowe ak huile d'amande douce bi ñoom moo ko composé dafa naturel en plus dafa baax boo dee xool huile d'amande douce dafa naturel comme ni ñuy wax ay huile de fenugrec en plus dafa nekk ay astuce yoo xam ne jarul ngay dem di wëri ji feneen yeneen astuce parce que boo xoolee lépp am na fi tubaab yi yi ñuy jaay dañ koy jël fii racines yi la ñuy jël fii plante yi dem defar ko seen dëkk ñëwaat di ñu ko imposer di ñu ko jaay kon donc pourquoi pas ñun mënuñu ko defaral suñu bopp bii aussi loolu lay jariñ mook bee ñoo yam waaye nag da di mante bi moom daa xaw a bëri effet boo ko defee moom monsieur moom macha allah bokkul ak goye bi <laughs> en plus dalay jox xet bu neex maintenant aussi bëggoon naa ñu ñëw ci bii nga ma laaj comme dafa tàng xam nga jéeg damay bëgg nga am sa ànd bu baax di ko utiliser ànd bu mag nag boo xam ne mën naa def ñaari kilo këriñ war cee mën a nekk deux jours waaye tamit bu tàngaay jotee damay bëgg tam nga génn feneen parce que xam nga dafa tàng néeg yi dañoo tàng te parfum chambre neex na torop mais am na góor ñoo xam ne dañoo bëgg cuuraay maintenant nag ñi nga xam ne dañoo bëgg cuuraay dañ leen àndil bi xam nga bii ànd électrique la bii mettiwul ànd électrique la dangay branché sa courant soo branché tuuti rek taal gis nga nii la mel dangay branché tuuti boo branché taal mu tàng tuuti bu la neexee nga débranché bu xasee ba tàng bu la neexee nga débranché jël sa cuuraay rek teg fi day ni ànd a nekk ci biir néeg bi xam nga doo sentir tàngaay bi te dinga sentiir sentir xet bu neex moo tax tey ma àndil la bii <laughs> léegi nag xam naa ne am na yeneen yu des yoo xam ne wanaguma la ko léegi damay jàll ci beneen balaa ñu du ci bu naturel bi dama lay àndil bii tey moom damaa bëgg ñu mënote gaay yi tey moom damaa bëgg ñu mënote gaay yi bii ay mënot la mu ngi nii li ko composé mooy bii fulaax la moom ngay teg ci bët yi damay bëgg monsieur boo koy boo koy mënote nga jël fulaax yi teg ci bët yi bii ay dee la xam nga am na ñoo xam ne xamuñu position yi dañuy ñëw rek chaque jour benn position rek la ñuy joxe ñu baal ma nag waaye damay bëgg jeeg ngay am plusieurs positions di def say position yu baax damay neex léegi nag dee bi dañ leen ko andil yoo xam ne day composé ay différents types de position nga ci joué yaag monsieur yéen a xam position bu mu sentir rek wala bu ngeen joué position bu mu tombeel rek nga war koo mën a dékku bii ay dunq la dunq moom ku nekk xam na ne dafa neex ni mel ci nopp noonu la mel ci yaram bii nag dunq nopp bii dunq yaram la da nga koy téye rek di karaaye monsieur fu la neex nag mën na faa dem wuyu ma déggoo ma de dunq bi bañu ruq bañu ruqaat <laughs> mënor yi nag damay bëgg parfois nga transformé wu en femme fatale xam nga nekk ci biir kër gi wane na yaa moom kër gi marqué sa empreinte boo nekkee ci biir néeg bi nga transformé ko def ko nee naa la def ko arène def ko grand théâtre def ko lu la neex mais en tout cas daal néeg bi na jax mën a tel monsieur taq ay bëtam transformé wu nag en vrai femme fatale di def lu la neex ci biir néeg bi yaay dirigé <laughs> léegi bii buñ ca tegee ma indi la aussi parfois nga def sa nuisette yi parfois moom xam nga sër neex na trop toujours nga génn ci sër mais parfois aussi nga génn ci bu tubaab bi def sa benn nuisette bu classe bu baax def say fer yu simple nga xam ne dara du la sonal lu mel ne tàngaay bi xam nga yi dafa neex ci tàngaay bi soit la en plus dafa neex nga def ko teg say fer yu simple rek xam nga guddi gi daal di neex. ah naa de. mama daal maman ci ma wàccee na fi waxoon naa leen ko de tey moom du yomb moom xam naa ni fii tey moom dina mel ni onze média jàmme tox mandi toxul mandi ndax saxaar sa macha allah léegi nag dañ lay laaj ci astuce naturelle yi 100 pour cent bio moom lañ bëgg nga xuus nànk jàllal ñu ci ñu xam. waaw xam nga Benjamin boo ma laajee ay astuce naturelle dafa may neex ndax xam nga dama di bambara malien laa. ñun xam nga lu naturel rek lu naturel bëgguñu dañuy bëgg lu naturel moo tax dama fonk karité fonk lépp loo xam ne dafa jóge ci lu naturel rek dama ko bëgg maintenant boo ma laajee lu naturel dama lay andil xama andil la kii kii tamit ñun ñoo koy ñun ñoo koy defar day am wan ko sa mbokku internet yi ñuy seetaan tu day am ceeb ceeb bi nag dañ ko mocc day am aldanke mooy feuille de jekka comme niñ koy waxee day am aussi gowe day am gowe maanaam benn mélange lay doon danga koy baxal dangay baxal dangay teg sa ndox raxas say ceeb moom set nga baxal ko def ci sa aldanke gowe bi gowe bi li mu ciy wut mooy xam nga jigéen tout le temps danga war a am odeur bu neex tout le temps danga war a am odeur bu neex d'habitude sax samay clientèle dama leen di digal gowe dafa baax surtout nag gowe simple bi dafa baax trop baax na ci cuuraay mais aussi baax na ci leneen tey jii yenn saa yi bu monsieur demee entraînement buy ñibbisi bu nekkee ci seddaay nga nekk sooy tàngal sa ndox da ngay jël sa ñaari doomu goye sànni ci biir ndox ma bu demee ba tàng dangay gis doomu goye bi day yàbbi ci ndox mi au fur et à mesure di ko sangoo day dem ba moom buy transpirer sax xetu goye lay génnee dafa baax maintenant lii tamit danga koy baxal ba mu baax def ko ci say butéel bu la neexee nga njar ndox mi nag parce que boo koy baxal mën nga def tuuti ndox mais lii mën nga ko utiliser plus d'une semaine mën nga ko utiliser deux semaines parce que dafa bari da nga koy baxal boo paree segg def ci say bouteille yokk sa ndox ba mu baax di ko naan déjà boo ko boo koy jël da lay refermer bu fekkee da nga am doom ba pare d'habitude dañ la koy digal ay ceeb gowe aldanke dañ la koy digal nga koy naan da lay jox odeur bu neex dina la refermer en plus da lay def femme euh, femme fontaine parce que xam nga ñu bëri dañuy wax naan jigéen tey dañuy wax toujours naan dañuy am ay sécheresse vaginale lu ci bëri dafay am léeg-léeg clientèle da lay woone la man de dama bëggoon loo xam ne dina ma def femme fontaine bien vrai que lubrifiant yi am na mais bi dara gënu ko ci lubrifiant dina la def femme fontaine dina la def nga nga nga refermé waat aussi dina la jox xet bu neex même nañ ma baal ci kàddu gi même boo demee douche saw sa xet bu neex odeur bu neex ngay génnee kon xam nga ne li am na njariñ léegi ma ñëw ci ceeb bi aussi ba tey tu vois ceeb bi ba léegi gis nga bi nekk fee moo nekk nii maintenant ceeb bi dañ koy moccu différence am ak ceeb bi dafa am yaa yaa une grande différence différence bi mooy bi jànq mën na ko naan jeeg mën na ko naan mais nag bii moom du pour jànq pour jeeg la dañ koy moccu maanaam dalay lay jubóole ak sa jëkkër xam nga ñun sama mbokk yi ñun malien yi wala ñun saraxule yi sax muy saraxule muy malien ñun ci lu baax la ñuy dox moom lañ xam te ci lu naturel la ñuy dox maintenant lii dañ la koy moccal bu la neexee am na ñoo xam ne nag dañuy bëgg ñu leen di jox ñu joxe seen turu jëkkër ñu moccal la ko yow sa tur ak sa turu jëkkër tànk yaa ngi koy naan di ko boo ko moccee lii gis nga lii dangay raxas rek sànni ci sa butéelu ndox mën na faa am une semaine bu sàllee nga génnee ko jëlaat beneen waaye daal mën nga koo utiliser plusieurs fois tant que yaa ngi ciy naan mu ciy naan gis nga Benjamin ni sa yaram di soxlaa diw noonu la la monsieur di soxlaa du mën a dem fenn bàyyi la bi bii moom mën nañ ñëpp mën nañ ko utiliser d'habitude jànq yi moom dañ leen naan tout le temps dañuy naan bii puisque bii c'est pour les mariés maintenant bii c'est pour les célibataires célibataires yi mën nañ ko jël comme tamit ñëpp mën nañ ko jël mën nga ko jël def ko bu nekkee kër gi dafa am ndaal wala dafa am siwo dangay jël rek dugal ko ci biir siwo ba bàyyi ko xale bi di ko naan tey ji moo waral da ngay dégg avortement yi dafay bari mais d'habitude boo xoolee doomu bambara wala doomu saraxule très rare ngay gis ñu avorté xam nga lu tax depuis dès le bas âge dañuy jël ci ndaal yi wala ci ndox yi lépp dañ ciy def ay ceeb sombi bi buñ koy togg wala fonde bi buñ koy togg dañuy jël ceeb tëmbal ci biir ba mu bax ñu génnee ceeb bi au fur mesure xale bi di ko naan ba keroog muy màgg déjà day raxas sa biir ba nga set day lutter contre ay règles douloureuses en même temps aussi sa biir fu mu setee moom avortement day jafe parce que d'habitude biir buy def avortement rek dafa fekk biir bi setu maintenant bu setee rek avortement dalay jafe moo tax am na importance trop trop trop nit ñi di ko naan te nekkul nag pour ñun bambara yi kese pour ñëpp la <laughs> d'après li fi maman jot a développé yëpp nag yaakaar naa ne leçon yi mokk na bu baax bu baax a baax mais dafa mel ni ci ma la rose ci loolu parce que day def tout ce qui est personnalisé xam nga dañ koy laaj mu duggal ñu nànk ci bagage personnalisé yi ak dra yeeg nuisette yi yéen mu gën a waaw Benjamin xam nga du ci astuce yi kese la ñuy yëngu parce que astuce du fer kese du sër aussi du ay bain intime at yee lépp lu jëm loolu yëpp ay astuce la mais am na tamit famille bi dafa yaatu dafa large xam nga ci infographie lañ njëkkee loolu moo waral La Rose tey ji lépp loo xam ne dañ koy personnaliser rek La Rose Séduction da ciy yëngu que ce soit muy drap wala muy tasse wala muy nuisette wala muy deux pièces bi sax am na yu ñu personnaliser mais yooyu moom duñ ko teg ci table ji dañ koy bàyyi rek <laughs> parce que yooyu moins de 18 ans lay doon maintenant damay bëgg parfois comme monsieur yenn saa yi comme léegi moom jamono ji dafa xaw a doy waar da ngay xëy liggéeyi monsieur day xëy liggéeyi kenn ku nekk da ngay liggéey samedi ak dimanche ngeen am ngeen mën a nekk ci kër gi parfois bëccëg bi damay bëgg kër gi neex damay bëgg monsieur kontaan bu amee samedi ci guddi bu baax bu xëyee boo ko defalee pass yi samedi ci guddi ba mu baax bu xëyee nga tegal ko benn petit déj au lit bu baax ne monsieur bul wàcc lal bi nee ko sama àjjana bul wàcc lal bi toogal ci lal bi ndékk bi fii la lay fekk si ba tax na dama lay àndil ay tasse yu ñu personnalisé tu bu bouteille bi bu la neexee nga def ci sa benn jus d'orange bu toog wala sa benn jus du njeer xam nga di njeer moom dama koo bëgg parce que dafa bokk ci astuce naturelle yi te day yee kooku noonu jarul ñu fay àgg damay bëgg nga def sa benn jus bu baax tu vois gis nga nii ma àndi samay sama baraada gis nga nga génnee sa baraada bi gis nga baraada bi xool ko ma def ci sama benn bon appétit sama yëf bu la neexee na nga personnaliser ko def ci santam wala def ci turam yaay xool génneel ko benn kaas bu ndikkee ba pare nga jox ko kaas bi muy naanee xam nga lii dafa rafet déjà rek boo tegee sa benn ensemble tu vois fii nga def sama yëf bon appétit gis nga plat bi ni mu mel yanj na yanj boo xam ne xëy boo ko joxoon sax mburu boo xam ne amul dara dara dara mburu kese la jox ko dute kese amul dara da koy bëgg a lekk parce que li nga ko taajal moo rafet te ni nga ko ko taajalee moo neex jeeg dangaa war a bëri feem bëri ay façon yii nag ci la bokk am nañ tamit yeneen ay drap yoo xam ne mën nga ko lal bëccëg bi def ci sa benn ay love you wala yaa xam lu la neex bu la neexee nga ñax ci sa photo yéen ñaax am na yoo xam ne tamit yooyu moom daa mel ne moins de 18 ans la yooyu à partir de minuit rek lañ ko mën a lañ ko mën a lañ ko mën a lal <laughs> bëgg naa yooyu daal bëgg naa jigéen bu bëri ay feem bëgg naa jigéen bu free bëgguma jigéen buy rus sa jëkkër bëgguma jigéen buy rus jëkkëram bëgguma jigéen boo xam ne day xool jëkkëram rek sëgg bëgguma loolu jeeg da ngay ñàkk pudeur dama bëgg jigéen bu ñàkk pidoor ci néeg rang muy gaaw c'est l'art de séduction c'est l'art de séduire vos hommes di la wax ni nag ni Cima La Rose am nañ contentement bu rëy ci recevoir la ci suñu plateau kontaan nañ torop di wax jeeg yeeg ñëpp ñu teel a ñëw passé seen commande fii ci Thiaman La Rose jeeg mineur yeeg xam nga yéen ma gën a ndaw ñoom Mrs Diop ak sama tooma ak jeez yéen ñëpp ngeen approché wu ci xeetu baax baax yi Benjamin Naar moo leen doon defal seen émission fashion classique tey astuce de femme d'ici là je vous à la prochaine